kenn xamul naan ba xamul fu mu ne ñëw taxaw di xasteeg di saaga waaye ku jàng ba xam doo defee noonu politique. wàllu wi Ousmane Sonko moom mi ngi wax ci euh, fitna gi ba noppi di yëkkati yeneen kàddu di ko teg ci euh, kaw Amadou Ba. waaw moom nee na kon euh, opposition bi bëgg def mbiram fitna seen thème de campagne moom loolu jël ko ci nañ indi programme bi waxtaanee ko wax na it comme Amadou Ba bu mooy lii jëmoon ci débat bi ñu bëggoon amal. Amu japp ni Amadou ball wax ba ki dem mu ne ab rapport musuko e épingle lol amut ndax amna na eh, rapport eh, inspection d'État bu ko daal di def ba ci sax mbirum 94 milliards kat yoy mom Ousmane Sonko jiitali si Pastef mi ko yekati démb ci goudi meeting bam don amal fele ci Mbour. ngeen biñ ko ne ñewal ñu débat dafa dem laqatu ñetti fan ñetti fan ba ñu ne CNRA nee d'accordu ci débat bi mu doog a génn ne d' débat ak Sonko. loolu moy mbirum bu deug waye mom xamna man xamna Yalla, xamna rapport musuko épinglé ñaari rapport nu mu tuti bu benn bu inspection générale d'État ak benen bo dossier 94 milliards yi ngeen ñaari rapport épinglé na wax lam te dinañ ko publier ba sénégalais gis ko sen bët dañuy wax ni sàcc bu dul raw jaru yàqi nelaw waye amna ci ño xam bëss bés ba ne ñi nga wax te baccalauréat amuñu ko baccalauréat nañu publier sen CV baccalauréat amuñu ko kon bu ngeen gisee ñuy wax loolu ñun dañu bëgg politique bi

lan lañ yóbboon ñetti butéelu ndox juróomi paquetu biscuit est-ce que ñoom mën nañu def lu ñu def ñun état état mi génne 40 milliards ne 8 pour secours la la ca des pour reconstruction la est ñoom mën nañu génne loolu. am na ku ñu débat ko nee ñu débat dafa dem laqatu ñetti fan ñetti fan ba ñu ne CNRA nee na d'accord ci débat bi mu doog a génn ne d'accord naa débat ak Sonko loolu mooy mbirum bu xam dëgg waaye moom xam na man xam naa yàlla xam na te nee na rapport mosu koo épinglé ni ñaari rapport lu mu tuuti tuuti benn bu benn bu inspection générale d'État ak beneen boo xam ne dossier 94 milliards yi ngeen doon dégg ñaari rapport yooyu épinglé na ko wax lam ca def moom xam na te dinañ ko publier ba Sénégalais gis ko seen bopp dañuy wax ni sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw waaye bu ngeen gisee ma ne ko ñëwal ñu débat parce que ñun dañoo bëgg politique Sénégal ñu teg ko ci qualité xëy di wax waxu ñàkk fayda ñuy wax fële Ndakaaru topp ci deru nit ñi di wax suba ngoon loolu du politique yéen su ngeen ñu toppee xam ngeen lu tax parce que ñoo leen njëkk taxaw ne leen pétrole bi ne leen gaz bi ne leen lempo gi ne leen mbay mi wax ak yeneen ak yeneen loolu moo tax ngeen topp moo tax Sénégalais dañu war a exigeant ku dem ba di waxati politique rek nañ ko ne kaay nga wax ñu yow ci mbay mi wala ci càmm gi wala ci pêche bi kaay nga wax ñu sa gis-gis lan la. salaam salaam gars yi maa leen di jaare bu baax a baax am ngeen jàmm sama gars yi fan yëpp nag defuñu vidéo nekkoon ci yeneen i programme mais abonné leen di like di partage vidéo bi. tey nag euh, Ousmane Sonko lañ leen indiloon tey dégg ngeen bu baax a baax li nga xam ne loolu la wax. dafa laal fu bëri nag dafa am fu mu laal fu am solo Ousmane Sonko laal na Amadou Ba laal na Barthélémy Dias laal na Bougane lépp ci campagne bi la gars dañuy politique quoi dañuy politique waaw Ousmane Sonko nee na am na ay genre opposant yoo xam ne dañuy naan a naan boo dootuñ xam fu ñuy taxaw xamuñu yan genre bouteille la ñuy naan taxaw di saaga quoi loolu ñëpp xam nañ ni kan la quoi kook noonu moom bu waxee ñëpp xam nañ ni kii moom àndul ak sagoom dafa dafa am lu muy jël quoi loolu moom dafa leer na ñëpp naka homme politique di taxawee di saaga publiquement te nga ne danga nga bëgg a jël réew mi ëllëg nee nga sax lu mu yàgg-yàgg da nga a nekk président de la publique yow yaa ko wax taxawaat nga nga ne bu ñu la joxee bu ñu leen joxee majorité assemblée nationale dëkk bu du dox day bloqué wu budget bu ñu indi assemblée da ngeen koy bloqué ngeen ne ñooñu noonu moom ñoom Ousmane Sonko duñ fi gouverner quoi ndax. luñ indi assemblée pour ñu voté ko mu jàll ngeen bloqué ko nee nga avion du naaw kenn du tukki kenn du dem kenn du ñëw lépp da ngeen koy bloqué bu ñu leen joxoon majorité assemblée nationale. sama gars yi Ousmane Sonko li mu wax dëgg la est-ce que nit ku ànd xelam dana dana taxaw di laaj ba pare di laaj pour ñu jox la nga taxaw naan buñ ma joxee dëkk bu du dox quoi lépp ay bloqué lu ñu indi euh, budget bu ñu indi. boo xam ne da dafa war a doxal Sénégal yéen da ngeen koy bloqué loolu Barthélémy Dias moo ko wax taxaw nga fele ci Bakel di saga ñep ku fi tudati Ousmane Sonko man nangam daal sa nday ñep di deg yow nga ne dañ la bëgg jox yow ngay laaj quoi pour ñu jox la réew mi est ce que lool ku and ak sagoom dana ko wax asan messere wax nako neena baat bu muy wax àndul ak xelam dafa waroon def ni bu affaire yi ñëwaat muy soga wax quoi ndax lool noonu mum képp koo xam ne ànd nga ak sa xel doo wax loolu dañuy ci Amadou Ba Amadou Ba Ousmane Sonko am na lu mu ko wax tamit Ousmane Sonko nee na ko yow bi ma la woo débat public da nga daw laa xatu bu sénéra génn ne débat boobu noonu du fi amee ngay soog génn naan pare nga pour jalo waxtaan ak pare nga pour def Sonko débat loolu tamit dangaa daw quoi xam ne débat bi naratul am nga soog a génn di wax te Ousmane Sonko nee na am na ay rapport yu am na ñaari rapport yoo xam ne ah, épinglé nañ Amadou Ba loolu moom Ousmane Sonko wax na ko nee na 94 milliards yi ñuy tudd noonu am na rapport bu ci épinglé Amadou Ba loolu Ousmane Sonko wax na ko Amadou Ba loolu tamit ñoo ngi koy xaar quoi gars yi jox Ousmane Sonko majorité assemblée nationale pour loolu noonu yépp ñu leeral gars yi da ngeen xamul rek Ousmane Sonko lépp lu mu leen mos a wax dëgg la balaa ngeen ciy xam dara nañ am majorité assemblée nationale ba dem foofu noonu danañ voté loi yoo xam ne ñoom ministre yeeg. ba ci président may Sall ñoom ñëpp dañ leen di woo juge leen te kenn mënu si dara amul député la kenn mënu ma woo si yoon amul leneen ak leen Ousmane Sonko sax wax na ko nee na bu fekkee ne loolu ngeen di bañ ba tax ngeen bëgg a dem laaxatu ci assemblée nationale ci benn fan rek mën nañ ci lever sa mbalaanu kiir yóbbu la si yoon àtt la Ousmane Sonko wax na loolu ñëpp di dégg waaw kon bu yeboo su fekkee bëgg ngeen réew mi fekk ngeen fekkee bëgg ngeen xam ñan ñoo luubal suñu xaalis nañ leen jox ñoom Ousmane Sonko majorité. ñu doxal li war a doxal wax na tamit ci Bougane Gueye Dany nee na Idrissa moo fi doon wax ne ku fi dof-doflu dañ laan dañ la naan coppet yóbbu dara du xew Ousmane Sonko la doon waxal nag ñëwaat na ci wax jooju noonu démb nee na am na ñoo xam ne dañ fi nekk di Sonko Sonko lu biñ leen jàppee ne leen coppet yóbbu dëkk bi tàkkul dara xewul euh, loolu dafay wone ne jub rek moo am solo quoi Ousmane Sonko la nit ñi àndal bi yeboo ngeen nangu ndogal. Pape Djibril Fall moom du mu wax ay waxam ndax kooku moom ñëpp xam nañ ne moom du wax ko du dëgg quoi fu mu toog bàyyee foofu noonu fu mu toog bàyyee moom daa fen a fen ñëpp xam nañ ne kii du wax ko du dëgg xool leen loolu yëpp ay opposant yoo xam ne ñoo ngi fii nii nara opposé wu gouvernement bi fi nekk nii genre opposant yooyu noonu ñoo fi nekk instant bii nii ñoo xam ne ay mandikat lañ ñoo xam ne ay sàcc lañ ñoo xam ne waxkatu lu dul dëgg lañ ay fenkat lañ ñoo xam ne ay ay fans Ousmane Sonko lañ opo genre opposant yooyu noonu ñoo fi nekk quoi di jéem a jaxase réew mi quoi damay wax ci benn cas damay wax ci benn cas muy kaw Abass Fall ak Barthélémy Dias dégg naa Abass Fall nañ ko ñëpp dañoo jël toor bi bëgg ko xëpp Abass Fall te li mu wax fayu la quoi boo leen bëggee juge nit ki da ngeen di njëkkee ci premier départ ba bu fin bi ngeen di xool Abass Fall ko gaañ ci moom ay éléments yu bari nee na sax am na koo xam ne dañ ko dóor bu mënatu wax moo ci diggante dund ak dee dañ ko attaqué gis ngeen image yi Abaal Fall wane na ko ci benn kii bi mu doon def am na ñoo xam ne seen kanam yëpp lañ yàq bu affaire bi naat ci deret loolu yëpp waa Barthélémy jaas ñoo attaqué waa Abaal Fall bu gaañ ay gaañu gaañ yu metti loolu moom merloo Abaal Fall ba mu génn naan suba kuy ñëw na indaale arme jaas yi ak lu la neex nga indaale ko ndax dañoo fas yéenee xeex. affaire bi fayu la quoi fayu la bu leen jël toor bi yëpp jox ko ki nga xam ne mooy Abass Fall loolu moom na leen leer naañ fekkee daal dañuy woo nañ woo baat ak Abass Fall fekkee dañuy téye nañ leen téye ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp ndax ñoom baat Lamine Dias ñoo njëkkee attaque bi ñee riposté loolu la quoi loolu ñoom ñaar ñëpp la waaw mënoon nañ bañ a egg foofu nag bi may aatu yàgg na bi ma bi may aatu yàgg na quoi Barth Lamine Dias bii nii dañu war a teel a jóg ci ay mbiram quoi dañu war a jóg teel a jóg ci ay mbiram koo xam ne saa yu génnee nappaate xuppaate Sonkoon yi Sonkeen yi ay nit fay nañ leen ñu ñëw di saboté loolu kese la fi nekkee ah kenn fayu fi kenn kenn fayu fi kenn dañuy topp Ousmane Sonko ba ci fin ba fu mu woote ñu wuyu ko benn nitam duñ ko neewal doole ñuy toog di seetaan loolu moom bu yóbboo mu leer seen nopp buñ ko woowee Abass Fall nañ woo Barthélémy Dias buñ ko téye nañ téye kee mooy loolu jaajëf sama gars yi bëggee naa leen bu baax a baax ba ci beneen vidéo jaajëf waay